dal leen ak jàmm ci jigéen ñi nga xamante ne rek ñoo demoon ci yenn ci hôpital yi ci réew mi ngir rek muccee fa ñoom nag jànkonte nañ fa ak ay jafe yu méttee métti yu taratar ndax rek ba ñu yeggee ci hôpital yooyee dañ leen daal di rek tëjal seen buntu yi ñenn ñi nga xamante ne jot nañoo dugg dañ leen rek daal di négligé faalew leen daal di leen bàyyi rek ñuy jéemal seen bopp muy rek situation bu méttee métti ci ñi nga xamante ne rek ñooy jigéen yi demoon rek ngir mucc ndax rek hôpital yi ci mel ni Louga Kolda Tambacounda Mbour ba ci fii ci tëngéej rek ñi nga xamante ne rek ñooy jigéen yi fa demoon di am doom jànkonte nañoo ak ay jafe-jafe yu méttee métti ndax rek sage femme yi nga xamante ne fekk nañ leen fa faalew ñu leen ba tax na rek li fa xew rek doon na lu doy waar di rek loo xam ne war nañ cee jóg ci nu mu gën a gaawee rek balaa muy ëppi loxo ak ginnaaw loolu rek ñi nga xamante ne rek ñooy pharmacie privé yi ñoo aye ñoom it daal amal rek grève ngir rek naxarlu li nga xamante ne rek moo xew jamono ji ci hôpitaux yi ñuy xam leen ne rek ñoom loolu liñ ko gisee rek mooy boo xamante ne nguur gi ak askan wi dañ koo daal di acharné wu ci seen kaw te boo xoolee rek ñoom duñu les seuls ci mbir moomu ndax les responsabilités sont partagées entre ñoom ak nguur gi la ndax tamit ñi nga xamante ne rek ñooy nguur gi taxawuñ leen ni ñu leen war a taxawoo maanaam joxuñu leen jumtuwaay ya ca war ngir ñu mën a amal rek seen liggéey ba mu mucc ayib ba bépp jigéen bu ñëw ci hôpitaux yi rek ñu mën laa gérer nu mu waree ba doo am benn jafe-jafe. liggéeykatu waa kër docteur ya nag jamono ji dañoo mer ba futtu di demander rek démission wu ki nga xamante ne rek mooy ministre de la santé di Abdoulaye Diouf saar ndax rek ñoom nee nañu lu jiin njaaga moom mile mooy njaag. fee ca Sénécor Linda nekk foofee ca zone franche industrielle bu nekk fee ca mbaaw rek kii di eh, Guy Marius Sagna daal dina fay dem ngir xeexal ñi nga xamante ne rek ñooy liggéeykat ya fa nekk ndax rek lu fa xew du lenn lu exploitation bu méttee métti ay salaire trente cinq mille ak cinquante mille quarante mille la ndaw yi fa nekk di fayeeku mu mel ni ñoom rek dañ leen di utiliser te joxuñu leen seen àq tax na rek kii bu mag boobule eh, di di fay teew rek ngir taxawal leen xeexal leen leen ci xeex boobu nga xamante ne rek euh, ñu ngi koy amal ñoom ñii di ndaw yooyu di liggéeyee euh, foofe ca Sénécor lindaa muy xamle ni rek moom Guy Marius Sagna ni kii di njiitu réew mi di Macky Sall deful lenn ci li nga xamante ne rek mooy xëyu ndaw ñi ba pare nag di permettre ñii di coréen yi ñuy noot euh, doomu sénégalais yi ndax nag Sénécor lindaa googulee ña nekk ca bopp ba ñooy ñi nga xamante ne rek ñooy coréen yi ñoom coréen yooyee nag exploitation coono bu metti rek la ñu nekk ak ndaw yi réew ñi ñi nga xamante ne rek ñi ngi liggéey foofu di ay ndaw di daan seen doole ndax li ñu leen di fay rek ndaw na lool ba jéggi dayoo ndax ñu ngi leen di fay li nga xamante ne rek mooy trois cent quatre-vingts francs CFA lañ leen di fay par heure muy rek loo xamante ne ndaw na lool ci kuy daan dooleem ba tey moom mii di Guy Marius Sagna ma ngay dénoncé rek li nga xamante ne tam moo fay xew ci jigéen ñi muy promotion canapé bi nga xamante ne rek am na foofee ah, ca Sénécor Linda ndax jigéen ñi nga xamante ne rek ñu fay liggéeyee ña ngay wax ni rek ñoom bu ñu ñëwee ngir liggéey wala ngir ñu bëgg egg fenn fi wala ñu mën a am yenn salaire yi rek dañ leen di tegal li nga xamante ne rek mooy promotion canapé eh, maanaam rek tëddee leen maanaam am fu ñu jaar ak ñoom ba pare doog leen a defal ay promotion doog leen a rek yokkal seen salaire wala boog ñu jox leen sax euh, bu ñu mën a toog liggéey ja muy ay mbir yu doy waar yuy xewee rek foofe euh, ca Sénégal Linda kii di Guy Marius Sagna daal woon fa dem rek tey ci alxamis gi ngir rek taxawal ndaw ñi nga xamante ne rek ñu ngay liggéey foofee ca usine boobu. wax na it ci dund bu cher bi muy xamle ni rek yenn ci syndicaliste yi dañ leen rek jënd ba tax na mënuñoo jóg xeex mënuñoo jóg taxaw rek nañu war a taxawee mënuñoo wax ndaxte rek li ko waral rek mooy euh, a xam xamle ni rek am na ci tamit ñoo xamante ne ñoom honnête nañu ñu ngay def seen liggéey nu mu waree waaye ñi si ëpp rek dañ leen a jënd ba tax nañu war a taxawee rek mënuñu koo taxawee mbokk yi lii leen leen indiloon tey ci li fi jot a ruus si xibaar di leen wax rek ba ci yeneen jotaay xibaar jërë ngeen jëf